القائل في محكم تنزيله اذكرني أذكركم وأصلي وأسلم على سر الذكر والشكر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذاكرين الشاكرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziyaare mboolem mbokk yi fi teew di teg ziyaare bi ci loxo Seydi Mahamadul Habib loxoom dana jot ba kenn ku nekk ziyaare bi ak si ci yow ci suñu sang yu jigéen yi ñu teg ko ci suñu loxo suñu yaay soxna Fan Njaay mi nga xam ne mooy yaay jataay bi ñu jël suñu ziare suñu nuyoo teg ko ci loxo suñu yaay yooyu su ko defee kon dafay mel ni kenn ku ne jot nga sa wàll ci góor ak ci jigéen Seydi Mouhamadul Kabir dem oo nañu ne nag ma jotalil sama nuyoo ak sama ndokkeel ci mbooloo mi nga tegal mu ko ci loxo Seydi Mouride Habib kon sëriñ bi ndokkeel laa ngi noonu bàyyi ko ci xalifa bi Cheikh Mouhamadul Kabir yàlla wattul ñu ko am mboolem ay rakkam jataay bi nag mi ngi aju ci zikru muy thème boo xam ne gisuma lu ko gën a yaa gisuma lu ko ëpp njariñ gisuma lu ko gaaw a mën a njeexital moom sikru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee mu jëm ci xeet wi ñett la indaale addiaayatu wa tawjiihu wa tazkiir ci olof mooy oote na bi mu ootee ci ndigalal yàlla alquran moo ñuy wax nu mu mel nu oote ba mel mu ne fariqan hada wa fariqan xaqa alayhimu dalaala bi mu ne wuy leen yàlla alquran mu ne am na benn kuréel bu nangu am na benn kuréel bu bañ loolu mooy première étape ba mu ne wuusi leen yàlla alquran mu ne ñaari ñaari kuréel ñoo taxaw bii ñëw bii na ko ñoo lànk fariqan hada wa fariqan xaqa dalaala muy première daawa bi mu ootee ba ñëw ba ci keppaar bi mu ne nii la yàlla bëggee mu def taw ji benn kuréel nañu ragal nañ jaas yi ragal nañ ku ñu génne ci mbooloo mi dañuy ñëw ci biir mais ni nga bëggee ñun parewuñ ko ñeneen ñeneen ni nga bëggee noonu lañ pare soo defee mu am al muminuuna ak al munaafiquuna daal di judd ci keppaar gi ñooy mooy ñu ooy ci buntab tawjiih buntab tazkiir nag ñëw ñëpp a jëriñu kon kuréel bu njëkk bi dañ leen a xaaj ci dëgg bi bu ñaareel bi xaajaat nañ ci dëgg bi am ay nafiq li gën a yéeme mbokki taalibe yi mooy alquran bi ñuy wax naafiq yi daf ne wa min man xawlakum min al arabi munafiquuna am na ci ñu dëkk ci àll bi nekk ay naafiq wa min ahli al madinati maradu ala nifaaqi laa taalamuhum nahnu naalamuhum sa nuazibuhum marratayn min ali madina moom lu doy waar madina ba lislaam sellee alxuraan waxoon ne màkk am na ay naafiq déglu laay ji bu baax waxoon wa min ahli makkata wa ahlil madinati makka yéen mu fasiru ne ne makka booba dañoo néew doole te nit bu néew doole benn melokaan lay am borom doole mooy bañ ci kaw mooy nangu ci kaw di bañ ci suuf boobu Medina commencé nañ am doole ni juddu fa waaye maa ngi rek ci séparé mbooloo yi wa min ahlil madinati a maradu ala nifaax yonent lu bët bi sori sori sori yàlla mooy ko xamoo leen man maa leen xam loola jeex état bu mujj bi ci oote mooy tazkir liñ nekk nii tey fàttali nit ñi waare ba moom ñu teewoon ci pénc mi ñëpp a jëriñu wa zakir fa inna zikra waxul fa inna daawata fa inna tawjiha fa inna zikra tanfaa sufiyankee nag foofu lañ jëlee ñoom ñoom dañoo ootee ci buntab tazkir tudd yàlla ba xoltooy ñu ji jikko yàlla jikko yonant jikkoy malaaka fokk mu jëriñ fa inna zikra tan fon ku yàlla moo ko waral moo tax muy bunt bu yaatu li lay xamal importance tudd yàlla yàqkat bu mag bi nga xam ne moom yàlla xamoon na ko lu bari di iblis ñaar la wax ne danaa fexe ba gaa yi duñ ko def ak dikru ak ak sukru istaxwasa alayhim seytaanu fa ansaahum zikrallahi iblis ñëw na taxaw ci bunt bi da danaa fexe ba kenn du def zikrullah ndax xam na importance xam na mi mën a wuggee njariñ mu ñëw dale koy baare zikru nag ak ci dooleem ñuy siikar ak seen doole bokkuñu fa ansaahum zikrullah ak lan sukru bi firi delloo njukkal wala tajidu aktharahum shaakirina kon zikru ak sukru la seytaane taxaw ci bunt ci bunt ci buntab yàlla bi na ko danaa fexe ba dox seen diggante zikru bi firi yàlla ak sukru bi firi delloo yàlla njukkal mbokki taalibe yi muy jaamu yàlla bu am importance amaana bu ñu yàlla may tawfiix ci tomb yi danañ ci feeñal dara lu tollook waxtu bi muy loo xam ne nii nag bëgg naa lool ñu bàyyee ko xel ndax importance bi nga xam ne zikru am na ko damay wax toujours nag te dama koy feddali ci jataay yu bari suñ jataay yii nañ koy soppi daara lan mooy daara fexe ba buñ tuddee yàlla ba xoli sedd ñu fexe ba nit ñi yóbbaale ak juyante ko jëlee fa dara yóbbu ka nga ka nga doon bi ngay génn sa kër boo ñëw sa kër nga bañ a nekkaat koo baax na kat mbokk yi ñu yaatal jataay yi di ci jàngale xam ne du ñu yem ci eskee rek mu jeex buñ paree kenn ku naa ah, ndeke yi fi kat man maa ngi doon peese lii léegi lii lay peese jataay kat bu amul li daanaka njëriñ la bëreetul suñ jataay war nañ ko gën a yaatal ci ñàngaleem mag ñi xale yi soxla nañ ko mag ñi ñoom amaana yàlla dimbali leen rëcc nañ ndax daje nañ ak mag ñi waaye xale yi nga xam ne seen jamono li leen di oo dafa bëri te appel yëpp mënuñ ci mucc illaa man rahima rabbuk danay baax léeg-léeg bu jataay yi amee ñu leen di jéem a joyant bokki taalibe yi mooy jaamu yàlla gi nga xam ne amul kenn amul lenn lu ci mucc moom rek ko am nag julli sax bu jigéen gisee ngant ñu ne ko yow looy julli ak lu baax baax baax jaamu yàlla yëpp am na pause am na sabab bu koy waral am na maani bu koy tere ba mu des zikr jaamu yàlla yëpp am na waxtu ba mu des zikr jaamu yàlla yëpp am na melokaan ba mu des zikr dana feeñ ci waxtaan bi amul lu dul sikar xeer garab yi suuf si bant yi mala yi yéefar jullit ku laab ku laabut guddi bëccëg jublu penk jublu sow siikar mooy jaamu yàlla gi xam ne amul ku ci mucc wa in min cheyin illa yusabbihu bi hamdihi wa in min cheyin istiraax yàlla mu ne amul dara dara dara ndare mi ngi siikar liy problème yi ndax boo demee seen daayira da dégg wala du dégg walakin la tafqahuuna faqul fiqu la fiqu mooy xam-xam buy daw sa jëmm ji ni deret di daw sa jëmm ji walakin laa tafqahuuna tasbiihahum yàlla mun na ñëpp ay sikkar lépp moom rek moo am loolu ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi wa in min shay'in illa yusabbihu bi nga xam ne amul xaar kenn ñëppay tudd yàlla suñ ko defutoon kaw nu wiraaf ñëpp a koy sàbbaal ñëpp a koy tudd lépp a koy tudd moom rek moo fi mën a bakkaw na bi dana feeñ insha allah ci biir darsu muy benn jaamu yàlla bu nekk boroom xam sax dëppoo nañ ne ku laabut jigéen bu ne ci fóot góor gu yore janaaba mën naa sikkaar loolu ijmaa la ci boroom xam-xam yi mbir nag toujours yaa ngi xam dooleem ca lañ lay fayee zikru doole ji fi nga xamee mooy uskuruni azkurkum doy na sëkk uskuruni bi tawxiidi azkurkum bi tayiidi uskuruni bi tawxiidi azkurkum bi tayiidi yàlla mu ne tudd leen ma ma tudd leen dara gënta rëy loolu mbokk taalibe tudd leen ma ma tudd leen damay wax toujours xale yi ci daara ji ma leen may yi ñaari xaaj la may gi nga xam ne benn may gi ci loxo jaam bi la nekk jaam bi ubbi doo ko may gi nga xam ne yàlla ubbi jaam bi doo ko ñëw ma jox ci benn bu ne benn misaal may gi nga xam ne jaam bi yore caabi ji sikkur ci la bokk yàlla mu ne tudd leen ma yaay njëkkee ma tudd leen kon jàmbe ubbi yàlla doo ma tuub sikru tuub nag yàlla mu ne man may tuub ci yéen ngeen doog tuub fa taaba alayhim lii tuub may yëpp nag nii la tëddee may gi nga xam ne jàmbe yëngal borom bi ñëw ci mbaaxam gi ak na ñëwee wa lillaahil masalul a'laa wala yàlla ubbi bi ñëw zikru nag mbokki taalibe heure boo ko defee fay bii mooy yàlla tudd la nu la yàlla di tudde ak nooy xamee ne yàlla tudd na la loola yàqu quran la boo demee ci alxadis alqudsi xadis bu gudd yontu mu nafsihi dakartuhu fi nafsi soo wéetee di ma tudd man man it danaa la tudd ci sama bopp wa man dakarani fi malain fii fi malain xayrin minhu soo nekkee ci mbooloo comme nii tudd ma ma tudd la ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo mi nga nekk foofu jàngaleen fi borom xam-xam werante kon ndeke malaaka yi seen bi ñoo gën groupe bi jullit ñi nit ñi ndax yàlla mën a soo ma tuddee sa mbooloo mi ma dund ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo mi nga nekk ñu ne kon ndeke malaaka yi bu ñu defee groupe jullit ñi def groupe groupe malaaka yi moo gën xadis bi lañ tegtaloo waaye am na ñu ne déedéet bàyyi mu ne yàlla ñetti mbindeef la am ku dëkkee manki ku dëkkee mat ak kuy bàggante ci diggante bi mala yi mala yi ñoom dañoo pare ku dëkkee manki sol nañ boobam manki ba péncam yàlla malaaka yi sol nañ bu ba mat ba pencam yàlla nit nag mooy bàggante ci diggante ñaari néeg yooyu su góorgóorloo ba la nekkoon ci moom mala jeex muy xëccoog malaaka yi moo leen gën waaye bokk na ci li tax addis boobu malaaka yi di gën yàlla na ci mbooloo ma bàyyi ko xel ku ma tudd ci sa mbooloo mi nga nekk ma tudd la ci mbooloo bi ma nekk la fa yàlla nekk moo tax ñu gën boo yoree yére bi ngay xëyee tilim xotteeku mais yére liggéeykaay la nga def cinquante mille ak yére bi nga ñaw bi ngay dem tabaski solo ko dem julli ji poos ba defoo ci cinquante mille boo wékkee ñaari yére yére ba léegi mooy liggéeykaay bi moo gën a xotteeku mais def na cinquante mille bee mooy bés bi defu dara ku laal yére bi xotteeku la sa àdduna tukki kon yére bi gënut mais lim ëmb moo tax mu gën a foor ci borom loolu mooy malaaka yi yàlla mu ne ku ma tudd sa mbooloo ma tudd la ci mbooloo mu gën sa mbooloo bi ne rek mbokk taalibe yi loolu war nañ ko bàyyi xel beneen bi mooy kon uskuru nii uskurkum tudd leen ma ma tudd leen alxasan albasri nga xam ne yàlla xam ku ko gën a barkeel làmmiñ ku ko gën a yaa am njàngale nee na tudd yàlla laa gis muy jaamu yàlla boo xam ne amul benn bàkkaar te léppam yiw la amul benn bàkkaar te léppam yiw la tudd yàlla nag mbokki taalibe yi mooy firi zikru mooy firi fàttaliku benn benn sufiyanke dañ ne ko ndax yow yaa ngi namm yàlla ndax yaa ngi ko fàttaliku mu ne ko déedéet namm ko fàddu lañ koy def te man waxtu wu nekk mi ngi teew ci man lastu astaaku man nammuma yàlla namm mooy ko la suri man mi ngi ma jege foofu tolluwaay la bu fa jàmb tollee yàlla lay wéttaliku mu loolu mooy almuraqabatul kubra tuddee la nag bokki taalibe yi imaamu Malik mu ne rahmatullahi alayhi nee na jaam bi lépp lu koy boole ak boromam na ko uti doonte ay jaasi la buñ la ko cawee sakkal la jàll utal ku la caw jaasi moo tax Abu Zarin sa sahaabiyul jalil dafa wax lu tumuranke mu ne man gaa yi bëgg naa xiif bëgg naa feebar ragaluma dee mooy bëgg naa dee ndoxoy sëñ bi lu kenn du ko wax de yow ñett yi nga wax yëpp ay feeñ waaye jalaal la mooy dafa may tax ak yàlla mu ne suma ma xiifee su xiifee daf may fàttalil daf may xiif bi dafa may oyofal ba sama xaatir sama sirru dafay kolewu ak pay yàlla kon kooku xiif na ko wëri am na ko bu reggee la xelam gi daj yàlla ko su boobaa ñu dem wëri rek mu ne feebar dafay oyofal sama ñaawteef dee dee tax ma dajeeg suma borom kooku bunt yooyee yëgukaay yàlla la ci moom yow nag su fekkee lu yëgukaay yàlla ci yow seetal bunt yi nga yëgee yàlla moo gën buntu yi la ci yow kon uskuru ni mbokk taalibe yi uskuru su ko defee nag mu des sikar xam nga dañ la ci jamono boo xam ne danay baax danay baax loo nekk nga xaw ko man di lay tuuti sikar ci mbooloo def giiw nii kii di xëcc kii di xëcc kii di xëcc ndax am na cosaan wala su fenke yi ñoo ko sos day baax ci xale yi dangay dem ci jataay ñoon la siikar nii sa ñu toog di siikar nii amatul jamonoy saxaaba yi boo yàkkamtee dangay foog ne yow nekkoo ci dara ah amoon na jamonoy saxaaba yi day baax xale yi lu baax lañ nekk ñu jiim leen a xamal ne am na cosaan kitaaban wa sunnatan jàng nañ ci hadisu abu hurayra radiallahu anhu mu ne yàlla am na ay malaaka yoo xam ne seen liggéey mooy wër jataay sikar yi dañuy wër jataay sikar yi bu ñu fekkee jataay sikar déglu li ñuy wax halummu ila xaajatikum ñëw leen li ngeen doon wër ku njëkk a gis ñëw fekk sëñ Habib su si ab jataay ñuy wër ba gis jataay bii dañuy ootante ñoomu neen na kaayale halumu ilaa xaajatikum bu ñëwee ñu jël seen laaf yi lalal leen ko añ bi mi ngi ñëw biñ paree li leen yàlla da njëkk a wax mooy gënam leen ndax gis nañ ma ndax gis nañ aljanna ndax gis nañ safara pour mu gàtt yàlla mu ne maa ngi leen di seedeel ne jéggal naa leen kon première meññetu tudd yàlla mooy boo fa bàyyi ko du yóbbaale bàkkaar wax jotaay yi baax na kon jotaay bi ñu nekk nii astaghfirullah bu sëppee la astaghfirullah bu xam ne amul lettre kon sëñ Habib sababal nañu loo xam ne buñ ñibbee du ñu bale bàkkaar toog ci jotaay sikar dafay rax bàkkaar yonent waxoon na ko saxaaba yi ne leen su ngeen toogee sama ron xaal bi ngeen di yore bu doon bu ngeen ñibbee du ngeen ci génn kon da ngeen joxanteeg loxo malaaka yi mooy da ngeen selle ni malaaka yi kon jotaay bi ñu toog nii mbokk taalibe yi baax na dafay kafaara bàkkaar bi si gën a doy waar mooy yàlla mooy ñëpp lay jégal malaaka ne ko yàlla am na ñoo xam ne dañ fa jaar rek de dañoo jaar ca sigar sa mu neex yëkkatiwu leen woon ñëw ñu nga toog ca gannaaw toogale gaañ yàlla na ko déedéet ñooñu mbooloo lañ moo xam ne ci benn riwaaya umul qawmu la yasqa jalisuun benn riwaaya umul julasaaw waaye su ko suuf ñooñu ku toogam yow mucc ndeke waxuma sax yow mi sañ Habib oo waxuma yow mi léegi ñëw mais waa ji fi jaar rek te mu yëkkati ko woon yàlla dimbale mu toog rek dafay kafaara bakkaaram kon nañ sant yàlla mbokki taalibe yi am na benn xikaaya sixatum yàlla xam mais am na ibra benn sufiyanke bu doon julli ak ay taalibeem benn waay jaar fa jógee marché yàpp kilo yàpp yi mu jëndoon mu seen ñuy julli sàppe bi rafet mu xam ne ñii xam nañ li ñuy def xam nañ kiñ ñu koy defal ci njortam lu rafet mu teg mbuusu yàpp gi kàbbar dugg ci mbooloo muy julli bi mu ñibbee jox soxnaam pour mu togg ndawal bi soxna si togg ab pop li ñuy ñoralee yàpp yàpp yu të ñor mu def ko waxtu ñaari waxtu ñetti waxtu yàpp yu të ñor moo ko sama yaay de man jaaxle naa tey si yàpp yu daal xanaa du yàpp kese boobu ba léegi maa ngi xam ba ko upp mu të ñor mooy mu ñëw jàppale ko mu të ñor mooy mu jaaxle mu toppat ay tànkam xelam daj fa mu doon jullee ji nit yàlla ba mu fa gis mën naa dem wax ci moom bi mu demee wax ko li ma leen wax mu ne ko yee eh, am na ci jaam yàlla yoo xam ne seen gannaaw boo fa jullee yàlla daf lay jéggal sa yaram dafay araam safara sa yaram wi araam safara yóbbaale na comme sa yaram wi yàpp la yàpp wi den doon sax dañ koy yëgal yow sa yaram wi mbokk taalibe yi loolu bu soo déggee ci may may gu la jaaxal yóbbu ko néegam inna allaha ala kulli shay'in qadirun lépp lu la jaaxal ci may gu waliyu neen ne yàlla lu ne mën nag ko soo rafetee njort ci may waliyu may ga du nekk ci yow comme sa yi lu mu yàgg ci lu mu yàggoon boo armanee wilaaya da jot mais boo weddee ak may même boo nekkee waliyu dañ la koy xel loolu mbokk taalibe yi jar na bàyyi xel kon jotaay yaa ngi noonu beneen bi mooy li lay xamal ne jotaayu sikar am na importance mooy Yunus Talla dafa mas a toog kenn ci néeg soxnaam bi bi mu toogee rek fekk am na ci saaba yi ñu def group doon tudd yàlla kon def groupe di tudd yàlla am na cosaan ziare pour ñu waxtaan la la ci diine am na cosaan toog di waxtaanee ku baax am na cosaan yun salaa salaam toog rek yàlla wàccee na ko wasbir nafsaka ma alladina yaduna rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajhahu am na sa groupe saxaaba yi ñu fas jotaay di tudd yàlla demal tënk sa bopp ci ñoom ñun dina bëri xadis ba mu ko nettali mu ne mu sol lu oyof bopp bi sax defaru ko woon sallallahu alayhi wa sallam di di wër di wër ba seen groupe saxaaba fekk li ñuy tudd yàlla ma toog seen biir ne maa ngi sant yàlla ba ma mayee ci sama mbooloo mi ñoo xam ne sama borom daf naa ma demal toogaale ak ñoom wasbir nafsaka nañ nañ bàyyi xel baatu wasbir gaal sa bakkan bi gaal sa bopp mooy toogaay ba même boo amee soxla lu ñor ñor ñor ñor ñor ba leen fa romb toogal ak ñoom kon yununt saa bay façon jataay tudd yàlla alxuraan na ko demal fekkee ji kon dara ëpp njëriñ géew boo xam ne yununt salaa dañ ne ko kaay dañ fekkee ji mu des nag beneen dars siikar ca kaw ak siikar ndànk comme ay xale lañuy ñuy wax ak xale yi laa bëgg ñu am luñ téye benn bu ne am na cosaan alquran jàngale nañu ko udu rabbakum tadarruan wa xufiya duunal jahri moo lay xamal ne boo yëkkatee mu yem baax na bëgguñ nag yëkkati koo xam ne ci barab bu ko laajut muy isaaj nit ña di fitnaal nit ña subaa lislaam danañ ci ñëw Seydina Omar doon sikkat ca kaw par guddi foo toll dégg mu jàng alquran Seydina Abubakar doon sikkat ndànk foo toll moom njàngam kenn du ko dégg ñoom ñaar ñu waxtaan ci Seydina Abubakar ne Seydina Omar yow tax boo jàng alquran ku la romb dégg ko mu ne gërëm loo yàlla yeekuy nelaw dàq seytaan yi yow nag itax ngay wax nag mu ne man ki may déyanteeg moo ma gën a jege sama làmmiñ wi loo wax mu dénk moo tax may wax ndànk Seydina Abubakar dafay siikar di di jox yàlla Seydina Omar di siikar di jël nit ñi pour yóbbu leen ci yàlla kenn ku ne yaa ngi liggéey kenn ku ne oto nga kii dafay accéléré uti ñu amul oto mu yóbbu leen yóbbaale leen ci yàlla yee kuy nelaw dàq seytaane fàttali ko fàtte woon ndaw yéen ñu rafet waaye loolu damay wax mbokki taalibe yi mën a leen léeg-léeg sikar ci ko ak sikar nang xamul nu mel mi ngi mel ni chauffeur bi ci biir oto bi am na foofu su fay dawal dafay ralentir code bi loolu la ko jàngal yaa ngi jub hôpital jum nga école jum nga nangam da ngay wàññi soo ba nga xam ne féex na oto ne sa kanam am nga droit doublé dawal mën nga daw mën nga yokk sa xel siikaram nga ko su la leeree ne fi nga nekk am na ku fay loru rëlantiral su la leeree ne tëli bi liibar waxaat ci ko kon ñaari benn bu ne baax na ci kam xaal bi nga nekk te saxaaba yi buñ doon julli ba pare lii xamal seen moromi saxaaba yi ne julli gi jeex na mooy foo tollu ñu ngi yaa ngi dégg ñëpp ngi tudd yàlla ci kaw kon am na cosaan bëri na njëriñ soo defee ñu bàyyi ko xel mu des nag mbokk taalibe yi beneen baat wala maa ñëw ci meññetu sikar foog man lay taayal Maodo bi am na ñu ne naan allah allah allah allah kese xem ci amut cosaan allah mooy yàlla rek mais goo dara boogoo ne yàlla dafa màgg wala yàlla moo ñu bind wala yàlla moo nangam benn baat bi kese ci ngay mooy baatu allahu rek nga yem am na ñu ne amut cosaan waaye xale yi il faut ñu wax ak ñoom baatu allah jàng nañ ci quraan mu indi ne tuddal allah xulillaahu summa zarum fi qawlim yal'abuna waxal allahu ñu ne allahu matul jumla allahu yàlla rek la firi wax waxoo ci dara waxoo da bëgg wala da ragal wala da nangam allahu rek wax na ko ci mais mel sa kilifa ci misaal Cheikh Sayid Sall nga dem ba ci bundu këram naan Sayid Sall waxu ko maa ngi lay nuyu wax ko dama laa ziyaare si wax ko ñaanal ma yàlla wax ko nangam ñëw tudd turam tudd turam ñu ne kon loolu matul jumla ah kay mat na jumla bokk taalibe bi nit comme yàlla lay tudd bay ko yéeneem ak boromam loolu mooy lan arab nangu na nu tudd baat dagg ci lu la neex boo ne allahu mën naa nekk mubtada mun na bu fa rabbi wala xaalixi benn wala allahu mu nekk maful wala dara uhibbu allah dagan na wala allahu nga nam ci yaa allahu lépp araam na nga noo araam na nga tudd benn baat lañu des ñu bàyyi la sa yéene comme waa ji yàlla lay tudd bi mu ne allahu bala nga ne allahu warta mën a nekk xamal lan la fa yéene nga doo ko mën a wax muy benn gis nañ benn sahaaba bu tudd baatu yàlla kese sahaaba yi yëg ko yonantu yëg ko te sahaaba la kenn ko réseau kon mën a nekk bilal ibn rabah asahaabiul jalil radiallahu anhu keroog bañ koy mbugal umaytu bnu xalafin ahadun ahadun ahadun ahadun luy ahadun luy firi jamono yonantu wax yoo ngi wàcc sahaaba yaa ngi koy dégg kii kii sahaaba la yem ci ahadun rek luy ahadun mais dañuy xam ne kon mi ngi namu ne yàlla kenn lu ngeen ma def du ma ko duma ma ko saf ndax yëg naa wiital yàlla bi sama xol kon bilaal ibn rabba ahadunam nga soo ko nangoo war a nga nangu Sufyaan ki mi naan allah allah allah mbokk tey la war a mën a nekk kon loolu dañ koy bayee xel xale yi pour ñu xam ne lu mën a nekk bi topp mooy meññeeti tudd yàlla jaamu yàlla dafa am yëg-yëg nit ki buy tudd yàlla lan la koy jural lim lay njëkk a jural mooy tuma nii natul xalbi xol bu dal xam ne maye kenn du la tere nelaw lu baaxee kenn du la tax a mer ku am lu baax sa xol sedd ci mel ni yaa ko moom jullit ñëpp nekk kenn ci yow ci am victoire yaa ko moom ku ci am defet nga bokk ak moom loolu tudd yàlla moom nekk jullit taxul nga mën loolu nit dana nekk jullit am juróom-ñett fukk ci islam bi dëkk loolu sax bu doomam ji amee bag xol baa ngay ñux ñuxi feebar la soo amee oto bee sax naa oto bi gan la ci man kaa ñaanal ma lam laa ñaan mais xol baa ngay wax musiba te jullit la mais feebar booba tudd yàlla da koy dindi ci nit alaa tatma innul qulub tumaninatul qalbi mooy da ngay ndokkeel jaamu yàlla ci seeni may di leen métitlu ci seeni safaan nga xam ne bu may ñëwee lu mu bëri bëri du tax nga bàkko tudd fa yóbbu nit de nit su manqué tudd yàlla du ko ñëwal ci may rek mu bàkko waaye buy tudd katab yàlla yàllaay wax ca xol ba su bëggee tëb mi ngi mel ni bal bu oto jéggi foog mu nor tëdd fekk oto ba tegee ko oto bu jegee bal bal ba lum rëy rëy di tali ñareet yàlla bu waafee ci xol bi boromam du bàkkooti du ko ñemee du ko mën ndax ki ki ci kawam moo ko not moo ko ëpp doole wa wal qaahiru fawqa ibaadihi alaa bi zikrillaahi tatma'innul quluub kon benn la ci meññet bokk na ci ay meññetam dafay dëgëral nit soo ñàkkee kattanu zaahir nekkal tuddkat ak yàlla gaynde sax danga ko mën a dégg alxuraan a ko wax alxuraan wax nañu bu ngeen nee bay xeex su nga nekkee ci xare bay reyante fasbutu waskurullah keroog bi muy yónni yónni yàlla Muusa musa Aarona ci firawna dama ne su ngeen demee nag isaba ila firawna kaay la dem ci firawna wala taniya fi zikri na tudd bu baax nag waaw dem dem ci firam lu ci jar yàlla na ngeen ma tudd dafay may fit te yàlla dafay teew sa kanam te doomu aadama su amee fit mën a jàlle message la ana jalisu man zakara nii yàlla ma booy boo muy tudd maa ngi toog wala taniya fi kon mbokk taalib yi tudd yàlla bokk na ci li muy maye mooy daf lay dëgërloo bokk na ci xoolal sew sew boo demee ci toilette ba génn ñu bàyyi ko xel nit bu duggee ci duus doo yóbbaale doo fa jàng alxuraan doo fa julli ci yonut noppi doo waxtaan soo gisee summeeku na ci toilette bul wax ndax malaaka yi duñ gis awra nit boo summeekoo dañuy toog ci bunt bi di la xaar soo waxee dañu foog ne sol sol nga yére bu ñëwee xool la fekk nga def yaramu neen di waxtaan bu ne la cim cim du baax ci yow de moom dafii la doon sangu léegi xaw ma lu ko dal fekk malaaka yi ñoo ñëw jéppi ko te jéppik malaaka mooy jéppik yàlla ku ne ci ab toilette da ngay noppi même téléphone bu sonnee bul nangoo yóbbu sa téléphone ci douche bi ngay sangoo di sangu ba nag allo nañ ko bàyyi xel kum doon dal jël dal suñu yóbbaale duggee ci douche ba génn baat bi ñëpp ko war a mën a mokkal da naan xuf raa naka xuf raa naka yàlla ma nga lay jéggalu loo def bay jéggalu tuur ndox dem toilette sangu ana bi lu tax sunna nañu ku génn ci duus waxal xufraanaka yàlla maa ngi lay jéggal boroom xam-xam yi noonu firi nañ ko ñu diir ba nga toog doo tudd yàlla dix minutes yi nga am ci duus ba tuddoo yàlla boo génnee war na ko jéggalu loolu tax suba waaw comme que boo génnee ci toilette di jéggalu yàlla te defoo bàkkaar mais pause bi nga posoon ci tudd yàlla lenn ci borom xam-xam yi nu ne ko ñu ne moo tax bëgg nga ne xufraanaka yàlla maa ngi lay jéggalu ndax toog naa nangami minute tur ma sa tur bi kon kay boo nekkul ci duus tuddoo yàlla ana ñaata xufraanaka moo la war maa doy waar kon mbokk taalibe yi nañ ko bàyyi xel bokk na ci tudd yàlla tarqiya ataraqi am na ataraqi bi zikri ataraqi fi zikri ataraqi ila zikri mooy yéeg taraqi mooy firi yéeg xam nga mbokk taalibe yi da ngay dégg du diw mooma tarbiya mooma taraqiya tarbiya mooy rendi tarqiya mooy fees togg mooy tarqiya nit bu la rendee xem ca kenn fekk xar mu ñu rendi noonu ay wala ñu lekk maanaam raxasu leen déedéet taalibe bu ñu ko tarbiyaa ñoragut aajowoon nañu fees dindi der bi day mooy man duma seen morom may doomi diw lu tax ngeen fàtte ma sant ca gàmmu ga loolu der la bu ñu tarbiyaa dañ koy ñori toj say yàq toj say yàq damay wax xale yi toujours ma ma leen man waay xam naa ñu sant sàll danañ damay wax dara waaye ñoom lay dimbali ma leen man waañ ci jàngukaayu yàlla yi laa ko boole dafay dimbale ak taalib bi loolu mooy lan bu njëkk ba set dugal loxo ndeyjoor taalibe bu nekk war na jël jën def ci sëyur mu ne xam ne meddam géej la laal na muy das lu meddee ci suuf si laabut bu xar dee sa gétt gi jën dee ca dex gi sunna mu ne jën wi laab na waaye lislaam nana xaram yu ngeen dina ñoom ñëpp a dee yàlla leen rey kee dee ci ndox laab kee dee ci diir yi ñàkk laab bi nga ko laajee Seydina Cheikh masalaan ci masala yi jubóog yàlla moo la ciy dimbale xam nga booy lekk lu médd booy rendi gàtt bi deret bi bi di génn ci moom dañ ko bàyyi xel yoo xam ne tabaski dañuy rendi gàtt bi ba jël seen baram sëpp ci deret ji def seen jë boo ko boo ko defoon daaw ren bu ko def dar su ñëw afallaahu amma salafa bi nga xamutoon ba def ko am garanti mais comme xam nga ne deret jooju sobe la bul laal sëpp deret ci jër bul njëkk génn mooy addamu almasfuuxu sobe la sharaa xar am na jikko yoo xam ne baaxul bëy dafa bëri coow xar dafa tayal xaj dafay lore nangam nangam seen jikko yooyu nekk ñoom boo rendee lu ñu mën a lekk lu laab deret jooju di génn mooy génnaale jikko ju bon ci après boo lekkee yàpp kese nga lekk ni jikko ju dem na bu dee jën géej Seydina Cheikh mu ne géej gi bu ca dee moo lay muucul tooke ba la nga waroon a rendi mu sotteeku géej gi la koo jëndee jën dañuy dindi bopp bi dindi genn bi buddi ko dal nit féeg yaa ngi ko béyee boppam bi mu gis boppam foog ñu dagg bopp bi xam ne buy gis na gis mbaax ak yàlla gi gis mbaax ak yonantu gi gis jàpp waaye bu la yàlla nattoo nga ne ci sa bopp ah jën ëpp gum na la sens ñu dindi bopp bi dem ba ca genn ba cat la yi nga xam ne heure booy dem bëgg bëgg ko yóbbaale genn la te dagg ko bëtt biir bi dund yi salte yi sànni doo ko def roof dugal ci biir cin bi waaye yaakaar na jigéen sàgganut bay togg aw jën te du ko waas du ko butti kenn yàkkamteewut ko foog ñu dina waaseen tóor yi taalibe ko taalibe pour mu àgg fañ jëm nit nit ñi mën laa jëriñoo état bi bëri la laaj ba dañu fa ne keroog nga àgg ci yàlla bi rek pare nga keroog la liggéey bi commencé foog ñu dagg bopp bi foog ñu butti foog ñu waas man ñu doog laa mën a jëriñoo bokk taalibe yi kon ataraqi bi zikri nit buy sikar ibnu atalila sakandari rahmatullahi alayhi mu ne ñàkk yëg yàlla ci sikar bu mu la teree sikar sikar di ñàkk yëg yàlla moo la yóbbu ci sikar yëg yàlla mu koy bàyyi xel ñàkk bokk ci gaañu bu ma teree dugg ci biir gaañ yi dugg rek tëba comme xaj lañu yëgal ci ay wàll nit moo gën a for xaj asaabul kafe bàyyi mu ne seen xaj bi biñ ko rombee xet yàlla xeeñ ko xaj bakkan bi dafay jël xet yu bari mu xam ne ñuy nit yàlla rek ñu daana waaw loolu gars yi dañuy wax rek xaj ma xet yàlla xeeñ xam ñu bëri luñ dégg te amuñ ci cër dañ koy weddi waaye ma jox la ci ñaari tegtal yoonu salaa salaam moo ne bu déggee ganaar sab gis na malaaka ñaan leen yàlla gaaw bu ngeen déggee xaj mbaw gis na seetaani ñaan leen yàlla mucc waaw bëtëb bëtëb bëtëb bëtëb ganaar xam ne léegi nga jël ko lakk ganaar gi léegi sax bopp bi malaaka ron la yow ak ganaar mu yor ganaar ci nguru li toog yàgg ganaar gi ganaar gi seen malaaka sab yow gisoo dara wala xamul ne kon yàllaay joxe lu ko neex yaxtassu bi rahmatihi man yasha bul bul weddi may kenn yaa tënk ganaar gi malaaka romb leen mu sab gisoo dara yaa yeew xaj bi seetaan romb mu gis ko gisoo dara kon ñàkk gis teruwut na malaaka yi ma romb na fi bul wax ne gisuma rek amut ñàkk xam teruwut loola am ñàkk a gis terewul loolu am loolu il faut ñu bàyyi xel ma ko taalibe zikru bi njëkk état bu njëkk mooy tudd yàlla ci làmmiñ bul mu yóbbu tudd yàlla ci xol bul baax mu yóbbu la tudd yàlla ci sëru wasku rabbaka fi nafsika ay marahil ataraqi bi zikri bokk na ci boo bëgg ak ca dayob sikar bi ñu soxla del bërloo julli ci yonent bi salaatan turaqiina ila dikri wal xubbi la bàyyi wax ndeke jaam bi bu dañu di ci yonentu day dem ba ci kanam yonentu fu mëntoon àgg ci tudd yàlla yonentu moo ko fi àggale bàyyi wax ne radiallahu anhu wax na nga ne mooy sikar leen maa leen jox ndigal ci tudd yàlla bàyyi yàlla mu ne tudd na yàlla tudd yàlla bu bëri bàyyi mu ne jox yàlla lu bëri yombut waaye maa leen warlul ne su ba mu bëri fa yàlla may la machine ngay jël jox ko benn alam nasara am na ko programme mu yàbbile mille alam nasara mën a lekk jël sa machine jox ko benn chiffre am loolu laal mu def ko chiffre yu bari fekkee mësit mën na loolu nitu yàlla mën nañu laaj laaj ci làmmiñu taalibeem ful ko mu bëri fa yàlla day am bàyyi mun wa in daaminu lakum an tabluqu xadal kasabti wax loolu tudd yàlla ci ndigal xam nu mel bëri nag dañ naan comme yàlla ñëpp ko bokk alquran uskuru la istaghfiru jarut laaj ndigal d'accord yow boo soxlawul ndigal tuddal yàlla waaye ndigal li dafa am leen lu mu ci def wax naa ci ay waxati naa waxati dama koy takkaraat jóge nañ Fuuta ñu ànd ak chauffeur bi oto bi am problème ngelaw pënu bi amul air àll Fuuta bi ku fa xam-xam ne ne ngelaw kese la ñu yéegal suñuy verre oto bi am problème air te air baa ñu sonal ba ñu yéegal verre yi mu daw daw daw ba ci jaaykatam ngelaw mu droite fay ñu benn benn benn benn benn raakool jaayu ngelaw man ne bi yàlla ngay wax de ñun ñi ñu ngi jaar ci ngelaw ba ngelaw li ñu déranger ba ñu yëgale weer yi sa bi nga am problème ngelaw te mënoo jël ci ngelaw lii roof ci pneu bi nga dem di jëndat ngelaw lim lay xam mooy jaww jaa ngi fees dell alquran ngi fees dell alquran jaww la uskuru ma nga fa istaghfiru ma nga fa sallu ma fa salimu ma fa mais pour ñu defal la ko sa jëmm ji mu naawal la foog nga dem ci jàkkatam nga bokk taalibe bi ñu président Ablaye Wade kenn ko déglu discours bu njëkk ba liggéey leen il faut ngeen liggéey tusu dee leen liggéey am loolu la soo xëyee yore sa peel na président Abdoulaye Wade mu ne liggéey leen di gas rek ci tëli di nettoyer te embauché wuñ la weer dee yaa ngi liggéey ci ndigal Abdoulaye Wade doo fayeeku am na beneen ndigal ngay demaat am foo feneen foo jaar ñu embauché la boo liggéey su weer dee boo tànn lañu dal ci emploi alxuraan bu ne uskuru liggéey baax na rek mais demaat feneen ñu embauché la fa ngay liggéey foofu ngay fayeeku inna la ala kulli shay'in qadir mbokki taalibe beneen bi mooy pour ñëw tëj eh, Cheikh Ibrahima borom al imam as-Saaxili yi daf ne borom xam-xam yi dañuy wéral ndax julli ci yonantu sikkar la wala du sikkar sikkar la wala du sikkar ndax dañu ko yéegal ci buntab sikkar wala moom beneen affaire la à part imam Saaxili yi mu ne mbooleem ñi am leeru xol xam nañ ne salaatu ala nabi tudd yàlla la wax na dëgg ndax ñaari mbir danaa wax foofu benn dars saabee dañoo ñëw ci yonant bi yàlla wàccee ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallim yàlla ak malaakaam yi ngi julli ci yonent yéen ñi yàlla julli leen sëlmal leen saaba yi xam nañu yonent moom la yàlla di déglu mooy leeral li tubayyina linnaasi maa nuzzila bi ñëwee ne ko ñun xam nañ ñu lay nuyoo mu asalaamu aleyka ya rasulallah mais nu ñu jullee ci yow moo suñ problème mu ne xoolu allahuma salli ala muhammadin déglu baax benn garaat indi fa wa ali muhammadin moo tax école yi taxaw am na école bu ne baadu sayidina bidaa la ndax biñ laaj yu ñuy jullee ci yow indiwut sayidina wax nañ dëgg loola noonu la ko waxoon allahumma salli ala muhammadin soo ko defee jël nga baati yonent dañ lay ñaanal yàlla nangu da sa julli gi ki ñëw na allahumma salli ala sayidina def na al adabu ma al xadrati al muhammadiyati sa bay di la yónni wala sa moroom bàyyi demal nga ne ilimaan ji Moussa Camara mu ne te Moussa Camara sa moroom la soo demee ba ci ilimaan nga waaye yow sëñ a ñàkk teggin xadu sa bay waaye bi muy wax Moussa Camara moom yëkkuwut ci bay ji mais yow mi yar ne la Moussa bay Moussa Camara mu ne moom tur bay gi mais yaa koy oddee yow kon boo oddee baax na mooy ëdëb soo uddul mooy def nga imtisaal mooy jël nga baat ya nañ ñaan yëpp yàlla nangul waaye daal ñun nañu allahumma salli ala sayyidina muhammadin seydina taalibe bu sëriñam futteeku rafleel boppam toroxlu yow jëlal lu am ci ay malaan solal ko seydina cheikh fu mu fekk dunde garaatam ngir yàlla mu ne ko jugal mu jug mu solal ko loolu mooy lan nañ dem ci salatul yoon yonte biñ ne ko lu ñuy jullee ci yow mu ne am siixa bu bàyyi ko fa yàlla allahuma salli ala sayyidina muhammadin fële comme moom li ko gënal mooy lu mu gën a futteekoo dara ñaam ca kanam yàlla moo gënal seen naa seer na ko man dama lay sol gis naa ci benn lettre bàyyi ci jamono bu jafe bàyyi di wax ay wax ay nit ci ay bor jafe-jafe ci cat lettre bi mu ne Ibrahim azalimu maa ngi yor lettre bi Ibrahim nga xam ne mooy tooñkat bi waxul Cheikh Ibrahima waxul sabal islaam waxul nangam ibrahimu zalim comme mi nga wax ak jafe-jafe am mu futteeku yow boo demee ba ci bàyyi yow bu ko tuddee zalim bu rësee ba zalim ngir bëgg la yàlla dara yow loo ay mbalaan solo ko seydina allahumma salli ala sayyidina muhammad alfatih xaatim haadi nasir yëpp ay yére la mel ni sayyid nasir mu joxaat yonent rendez-vous ci jawharatul darul kamal pour Muhammad ñëwu ci allahumma salli wa di ko bàkk di ko bàkk rek di ko noonu la taale bi def ak yàlla bi yow yow yow solul ko mbubb boppam zalim yow bu ko tax ma ne la julli ci yonent bi zikru la zikru mooy fàttaliku yàlla comme yàlla moo nañu julli leen ci moom nga ne allahuma amul kenn ku mën a julli ci yonent bi ko yàlla sante dañ koo delloo waat ndax yonent laam laaj goo xam ne amut kenn ku sa lamin am doole yi mën a jël engagement ne yaay julli ci moom moo tax bi ko yàlla sante dañ ne yow allahuma yow yàlla salli ala moo ñu ko sant ñu ne ñu delluwaat ko yëfi moo lay xam ne salaatu ala nabi doole kese la jaam yi dañ cee lottu moo tax ñu bàyyiwaat ko santaaneem yàlla la te fàttaliku yàlla almutanabbi dafa toog ci wetu jàkk gi benn waaye noddu mu ne ko ala azin fa ma azkarta naasi wala layanta qalban bu waqaasi noddal da fàttali nit ñi yàlla waaye man fàttiwu ko su dul jaamu yàlla ci baata noddu yi man soxluwuma wala tolluwaay la te doon mën na dañuy noddu nag ndax sunna la nañ noddu waaye dara wax na la noddu bu rek pour fàttali yàlla la man fàttewuma ko kon allahuma salli kon dëgg dëgg bi julli ci yonent bi baa di nga wax yëpp yaa ngi ciy takkaraat baatu yàlla lu bare bëree bëri kon mbokk yi loolu ci tënk moo nekk darsu bi mu des nag ñu tudd yàlla am na yëg-yëg buy ñëw ci xol alxasan albasri rahmatullahi alayhi nee na caf nga soo ko amul ci ñetti palaa yi demal faju ji fi tilaawati wa fi dikri wa fi salaati ala nabi buñ jàngee alquran comme suñu doom ji léegi kii déglu riwaaya bi mu jàngee muy riwaaya bu tudd comme Seydi Ali Rasim waxee muy riwaaya bu tumuranke njàng mu rafet yëg dara santal yàlla ñuy sigar nga yëg santal julli ci yonent bi nga yëg santal yàlla mu ñett yi ku ci nekk te yëgoo ah war nga dem fañi Cheikh Ibrahima mu ne wa man daaqa taama zikri wa sawmi faaniyan faqad daaqa taama al mustafayna wa utxifa bàyyi mu ne boo ooree yëg ñu tudd yàlla nga yëg nga julli nga julli ci yonent bi nga yëg bàyyi mu ne caf ngaay Moustapha ya mooy yañ tànn yàlla may na la ko xalaawatu zikri yàlla yàlla defal ñu ko bi jaay Mawlana rasulillah su ko defee nag mbokk yi wax ji gudd na lool ñaan yàlla mu jëriñ ci ñu tëjee nag benn ndénkaane boo xam ne benn borom xam-xam moo ko wax ñu bàyyi ko xel may waxaat tuuti bala maa dugg ci loolu mooy aala bi ngay jëfandikoo di ko tudde yàlla yow kese mooy sa kurus nday safiyatu soxna yonant amoon ay doomi tàndarma yu bari xadis bu wér la bu doon tuddee yàlla day jël per doom di tudd xëcc benn doom saal xëcc tudd benn indi benn saal tudd ba mu pare ma defaat ci mbuusam su amoon kurus dana ko jël kurus lu ñuy dimbandikoo la pour jaamu yàlla usul la wax ne wala mal usul maa laa yatimul waajibu ilaa bihi fa huwa waajibun lépp luy mottali farata farata li lay xamal ne yontu junj na ko talwiixan mooy nee na ci hadis yontu mu ne yàlla mu ne ku julli ci yow benn yoon ma julli ci moom fukki yoon ku julli ci yow fukki yoon ma julli ci moom téeméer yoon ku julli ci yow téeméer yoon ma julli ci moom junni moo lay xam ne kon adat adat jaamu yàlla gu am lim dëgg dëgg mbokk taalibe yi alquran yaxal na ko sunna yaxal na ko lim nag lépp lu la dimbale pour nga mën koo matal loola matériel la booy jëfandikoo pour jaamu yàlla rajo bi ñuy noddee amatul jamono yonantu mais bi ñu ko jëfandikoo kon ñu xam ne tisbaar jot na ñu dem julli ji kon ndekkee rajo bi damay daal nekk farata ndax day mottali farata matériel bu lay jàppandal sa jaamu yàlla rek innamal amalu binniyaati foog ñu bàyyi ko xel kurus nag dafa am ñun luñ ci miin ko def dama bëgg xale yi ñu bàyyi ko xel dem ci jàkka ñuy kàbbar julli nga bëcc kurus gi sànni loola damay bàyyiloo xel xale yi na kurus dafa am sirru bu ñu nekk mag ñi te lislaam nangu na tajriba tajriba mooy nattu benn aaya ci xale bu bari jooy natt benn aaya xale bi noppi loolu yàlla dana ko may ab jaamam ci kenn ni mu ragalee yàlla mbóor yu bari yàllaa koy xalab ay jaamam boobu bu lu weddi mu ko la dul mu lislaam nangu na ko bari na suñu borom xam-xam yi aaya yoo xam ne ñu ngi ko jëfandikoo jàngu ci benn su ko defee nag comme kurus mag ñi daanañ def ne nit day feebar ak jul kurus suñ magi tarixa bi bari na ci dugal ci ndox yéene feebar ba ki feebar jëfandikoo ko rek yàlla may ko wér loola ci gëm yàlla la bokk jëfandikoo asbaab yi bi ne feebar bi am na fi nga jëfandikoo sa masque di laal zel ah du yàlla mooy dogal kon mask bi nga jëfandikoo jaamu yàlla la mooy wattandiku yàlla moo ñu ko digal nattu barke ci yëfi tamit sax na ci sunna moo tax kurus soo demee ba ca jàkka ji di julli defal sa poos bul bëcc allahuma mi ngi ci kurus gi rab bi mi ngi ci kurus gi tuturi ngay sikkat dafay topp per bi kon boo demee bay julli dafa sa poos waaye buñ kàbba rek nga sànni xerasal tur yàlla ci kurus gi maa ngi ko jox xale yi pour ñu bàyyi ko xel fa muy tëjee mooy benn borom xam-xam mu ne ñeent a ngi nii ku ci nekk ñu nekk ci yow ñeent yi ban la mooy as-sukru wal imaanu wa duaa wal istixfaar bàyyi waxoon ne ne fu man balagal matluba falyakun shaakiran ku dem ba jot li nga bëgg continuer di sant yàlla ci wax ci jëf ci melo bokk ci delloo bàyyi ngis njukkal ci yaram bu rafet buñ ko xeebee ci yow loolu mooy première jërëjëfe bàyyi bi gën a mooy fexe ba boo doxee ci mbedd mi koo dëkk ca marché ba ca école ba ca mbedd ma ca jàkka ja nga xam ne kii kat ndeke defarab lislaam la aarif li muy firi mooy jullit buñ pare ci moom amu leneen amul leneen sol nga mbaxana solo mbaxana solo grand boobu solo dal yoo mën a sol keroog bu ñu paree ci xol bi mel nañ bëgg rek enrif bi lay yii mooy ban alquran mu ne maa yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum yàlla mooy du mu leen buggal mukk ci yéen a may gëm yéen a may sant kon ndeke sant yàlla boo ci nekkee mu ñëw mu ñëwal la gëm yàlla boo ci nekkee mu ak ban jéggalu yàlla wa ma kaana laahu muazzimahum wa hum yastaghfiruun heure boo ragalee problème maa ngi lay dégg astaghfirullah heure boo ragalee problème del julli ci yonent jigéen sax bu taxawee lu yàgg amul doom nañ heure boo ragalee maa ngi jigéen bu taxawee wala góor taxaw doom tëkkoo ne tax astaghfirullah rek bala moo tëdd boo ci amee lim moo gën boo ci amul lim ma nga jaamu yàlla bi la aadil kon istifaar ku ci nekk mu nekk ci yow ak ban ñaan yàlla ñaan yàlla comme yàlla mën na li ma am du jeex moom rek moo wax ne ku mu ñaanul ma meral milliardaire ba taxawuñ këram ñaan ko cinq suba cinq mille gannaaw suba cinq boo ñu mën a kii moo soof yàlla mu ne ku ma ñaanut man dama lay mere nañ di ñaan yàlla te bu ñu bu ñu ñaan yàlla li ko ñaan na rëy na bëri bàyyi mi mën a ñaan dañ ne kaaba gi boo ne ko jàkk loo ñaan yàlla nangoo déglul bàyyi ni mu ñu yaree bi mu ne jàkk kaaba gi daf ne yàlla gannaaw gis naa kaaba gi gannaaw si tey lu ma la ñaanee yàlla na ko nangoo eh, yaatu na ma kitaab bi mag muy wax la moo tax di jëlee fii ci mag mag ñi dafa óor boo fa demoon ñaan oto ñu jox oto mu jeex waaye gannaaw si tey yàlla comme xool naa kaaba gi lu ma ñaanati nangul ma ko ñett yi nga xam ne boo ci nekkee ñu musibaal la fa lay tëjee mooy al makru pexe damay wax jigéen ñi toujours ci buñ leen di muur ci seet man leen jëkkër duñ ko liggéeyal dañ koy liggéey jëkkër duñ ko liggéey dañ koy liggéeyal loolu mooy lan ñaan ma sama jëkkër ji naa ko fas sama la fu sér fu ma joxoñ foofa la jaru ko liggéeyal ko rek jëkkër bul ko liggéey liggéeyal ko am doom ju baax am doom ju liggéeyal yàlla am doom ju ñuy liggéeyal ëllëg wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli heure boo tabaxee kaso yaa cee njëkk dugg pexe baaxul yal nañ ci yàlla musal bul pexeel kenn bul bokk mukk ñuy gas pexe pour sa mbokk julli dugg ci yàlla mu a gasal mu xóot yaa njëkk dugg kon al makru baaxul beneen bi al baxyu innama baxyukum ala anfusikum beew tëggu baaxut benn waaye toog na ci pénc na laaj leen ma la commencé aras ba ci asamaan juróom-ñaar lépp xam naa ko di bàkku góor guñ yar génn ñu ko àddoon li nga wax ko we de man day doo jëw ma aras jëw ma suuf si maa sa karaw bi sa karaw bi peer la wala am peer la sa karaw bi dafa tuur wala dafa tollanti ko ak ñaata la muy commencé xasam waaye mun nga yow sa bopp bi nga yenu karaw gi nga yenu xamoo nu mu toll lu wuti aras kon tëggu baaxul innama baxyukum ala anfusikum bi topp mooy fecc kóllëre siyaasan dem nga dem Cheikh Saïd Sall suub la nga jëriñoo imam Cheikh Tidiane Ndiaye suub la nga jëriñoo Seydi Omar dem ca daayira Samsul Maarif suub la nga jëriñu Seydul Habib suub la nga jëriñu nga xëy bis fecci kóllëre rek moom xam nu mel ventilo bu courant coupé lu taxaw bees de day daw rek mais tëbb ñëwatut ventilo bu courant coupé ma ngay daw mais amatu tëbb nu xel moo gën a bëree muy gën di wàññeeku kon ñetti yi ku ci nekk mu nekk sa musiba kon mbokk taalibe yi lu rafet ci kàddu gi ñu ngi koy sant yàlla lu ci juum yàqu ci ci ñun la ñu ngi jégal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi